وثلاث مئات وألف ورحبت به وسلمت عليه بهذه القليلة فتقبلها مني وبارك لي فيها واجعلها فوق السن في الدار اللهم رب رمضان سلم لي رمضان وسلمني لرمضان وسلمه مني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi fi teew yépp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax ci turu sëriñ bi di siyaarante ak bu baax di leen ndokkeel ci weeru tedd bi ñu nekk di leen ci balu àq bu baax a baax te di leen ci baalit àq di ñaanit suñ boroom may nu nu àggale ko ci jàmm ànd ak koor gi ak taxawaay bi war ba mu àgg ci jàmm te it suñ boroom nangul nu ko bu nu ko nangulee ba noppi it mu may nu nu fekke waat ko ay déwéne déwéne déwén te yépp di dàqal ren maa ngi nuyoo bu baax ci turu sëriñ bi di teew fii ci ndigalam mu wax ne naa ànd ak ganam gii di Abdul Ahad Saane ñu yóolu leen ak moom muy gan koo xam ne gan la du gan moo waxee bàggal nañ xam ne du gan waaye ginnaaw barab bii ñu nekk ak liggéey bii ñuy def amagu fi woon ab teewaay moom moo tax ñu tudde ko gan mu wax ne naa leen liéw la ak moom di xarit la taalibe la boroom xam-xam la nit ku jàngalekat la jàngkat la jàngalekat mu tudd Abdul Ahad Saani dugan nag ci yoon wi ndax nit bu demee ba am lu mat juróom fukki at te yàlla def Cheikh Abdoul Ahad moo ko tudd jox ko aw kon bay boo ñu wax ne du gan jébbal ko ko itam di fàttali it ni académie bi liggéeyam suñu borom mi ngi defit mi ngi yaatu ndax bu ñu demee Kaolack fi mu nekk nii ñoo ngi ko fay dundal euh, dakaar moom it euh, Géejawaay académie ma ngi fay def activités yu mel nii ci weeru koor wi loolu lépp ngir yaatal liggéey bi ci ndigalul sëriñ bi kon dañuy daal di jox sëñ Abo Mbakke mu ubbil sëriñ Abdou Lahad Sané waxtaan wi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare leen ci weeru mag yi ñu nekk weeru barkeel di weeru yërmande yàlla ci jullit yi am ci mbégte lool maa ngi wax ne jotaay jotaay bu mag la ndax moom dafa mel ne ay weesu dañoo nekkoon ci dañoo nekkoon sëriñ bi ci barke beeg yooyu mu ne léegi nag jot na sëkk ñu muriku nag jëm ci li sëñ Tuubaa noonu la ko biig te loolu mooy jataay xam-xam yi ñuy jàngale li sëñ li sëñ Tuubaa nekkoon te jàngale ko nuy siyaare bu baax Serigne Thiam mi nga xam ne moo ko fi teewal ak mboolem mbokk yi mu fi nekkal ci ay kilifa lépp mi nga amee ci ndigalul Serigne bi ak ci kilifteefam waaye ma mu teg ko ci loxol kilifa yi nga xam ne ñoo jiite académie bi di Serigne Cheikh Khadim ak Serigne Mountakha Mamour tey nag ñu indi mawdu boo xam ne di thème bu am solo muy thème gëm yàlla te mooy wéetal yàlla jàngat ni ko sëñ Tuba jàngale ak jëmmi sëñ Tuba ci boppam tawxiidam ndax ginnaaw ci gannaaw lañu ñu topp koo topp war ngaa xam fa mu jëm loolu mooy tax mu tuuti topp sëñ Tuba ne woon na ngëm moom lañ jëkk waral ci nit ki أولها أول ما أوجبه الرحمن قطعا على المكلف الإيمان moo tax yéefar bi lépp lan lu mën a def dara du ca biir ndax ngëm lañ jiital ci moom ba noppi li fee gëmut muy koor muy julli muy lu mën a doon dañ na bu ñuy tudd ñam war dañ koy jël ndax lañ jëkk a waral ci moom mooy ngëm ngëm nag buñ koy wax mooy tawxiid wéetal yàlla ndax gëmu gëm gu àndut ak wéetal yàlla loolu duñ ko tuddee iman loolu shirk la wala iyaadu billah kon bu ñuy wax ngëm muy tawxid mooy wéetal yàlla xam na yàlla kenn la ñoo xam ne yi yépp yàlla yónni woon benn baat boobu rek lañu lañu wax lañ doon wax amu leen benn buur bu dul yàlla aayaat yi sunu boroom di wax ci suratul araf yépp yonente yi doon ko wax maa lakum min ilahin gayru moom la nuux wax Huud Saalix Shuayb ñëpp ak yonent yëpp kenn génnu ci loolu kon gëm yàlla ak ko xam na benn buur la mu fi andi woon yonent yi kon tawxid bu amut diine amut ndax sëñ Tuba nee na ka annama tawxidu fi dal xaali ruuxun li diinillahi dil jaleel nee na diine bu doon jëmm tawxid mooy ruugi kon jëm bu amul ruu ku ne xam ne du doon lu am solo mu ne lépp lu nit di denc di ko waajale bàmmeelam ba bis pénc tawxid moo ca gën lakinnama tawxidu xayru zuhri li shaxsi fi lqabri wa yowmin nachi lépp loo xalaat mu jariñ la ëllëg rek mu ne tawxid moo ci gën mu ne ndax tawxid ni ko sëñ Thierno waxe léegi xam-xamu tawxid moo jiitu moom mën naa mën naa wéet yóbbaale yépp waaye benn mënu ko yóbbaale nit ki bu amul tawxiid lu mu mën a def du ko jariñ dara nit mën naa gëm yàlla tey am tawxiid tey faatu tey mucc tey waaye laneen mënalu ko loolu mën nañoo joxe misaal ci day mel ne sunu boroom sax loolu la bëgg a joxe misaal ci mbirum Abu Taalib def lu baax mënut te weesu dimbale yonent bi ak aar ko ci ci pexey noon yi loolu def naa jëf ju baax mënu ko weesu waaye taxul ñu mën a jàpp ne mucc na ndax ñàkk tawxiid gis nañ itam jabarkati firawna ya benn bis lañu lañu ba ñuy jonganteek Muusa Muusa jong leen ñu gëm aamannaa ah, bi rabbi Haaruuna wa Muusa firawna leen ñu faatu ca bis ba ñu ñëpp jàpp ne texe nañ ca bis ba ndax yóbbaale nañ tawxiid loolu mooy wane ne kon jëf lu mu baax baax te àndut ak tawxiid du doon jëf ju lay jariñ dara tawxiid bu xasee amit mucc mën naa am kon man xam ne julli yeeg wala dem dem ca toolee di liggéey sëriñ beeg jàng xasida yeeg màggal yeeg yépp dañ fexe ba tawxid jiitu ba noppi ndax bu tawxid jiituwut yooyu pënd rek lay doon sëñ Tuba moo tax sëñ Tuba ne awwalu waajibin ala al sa tahsilu zaadihi min at tawxid li jëkk war murid bi mooy na am tawxid ba noppi bu muy dugg soog ca dugg kon loolu nañ ci góorgóorlu bu baax a baax kii ñu ko war a jox nag mu defal ñu waxtaan wi defe naa suñ carno taarif bi mu ci def doy na sëkk loolu tax nañu rafet njort ci liñ ci soxla danañ ko ci am waaye rafet nañ ci njort yi ndax genn wàllu turam bi abdul ahad buñ ko joxee te mu tawxid danañ ci rafet njort ndax day mel na nit ku ne aw turam aw turam day day da koy jëme ci da koy bijj jëme ca la tur wa jëm ni ko sëñ Tuubaa misaale ci Abu Jahl ca miimiya bi muy nattale xare Badar mu ne genn wàllu turóomba moo ko yóbbee lu ko dal muy ak réer te mooy ak ndof ndax yonent bi bam génne di dogale ji abu sufyaan ca njëg ma ca Shaam abu sufyaan yónnee ca waa Quraysh Makka na leen ñëw leen wallu wallu si ma ndax yonent baa ngi may karsi ca yonent bi ci ndigalul yàlla la ko doon dogale jee abu sufyaan ba waa Quraysh tàmbalee di waaj ngir génn abu sufyaan dafi pexe ba raw ñoom ñëpp nag ñu ne ginnaaw njëgg mee ñu taxaw na génn te njëgg mi raw na nañ toog abu jahlin ne mukk daana dem ba ca barab ba mu puukare fa bàkku fa sëñ Tuubaa ne nag kon lakinnahu jarrahu nisfu smihi liradan fa xabu kulli musamman min sumaahu sama ne genn wàllu turam woowu rek moo ko yóbbee ca alkande jakotal te mooy ñoom ñëpp moo kilifa Makka yi ñu ci bari ñu rey leen sànni leen ca kamb ga mu ne du moom dong nag kenn ku ne sa sëw tur da lay da nga cay jële ab cër kon moom genn wàllu turam bii moom it rafet nañ jortu ci ne al ahad te mooy al ahad abdul ahad ko waxtaanee law mu jàngalaat ñu tawxiid daañu rafet njortu ci ne liñ soxla te nañ ko ci am noo ko ci ñaanal tawfiq bu noppee itam sëriñ ibrahima mu sëriñ moustapha xabsa dana ci dana ci dolli dana ci dolli insha allah bu moom it sëriñ xalil bu noppee itam lu ñu waxtu yu may rek kilifa yi fi teew ñoom itam ñu jox leen ay kàddu ñu am luñ ci dolli kon sëriñ Abdul Ahad bismillah bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam bu sell di ci jiital ki nga xam ni mooy a cheikh Muhammadul Muntaqa moom mi nga xam ni mooy kilifa ci pénc mii di nuyu mbooleem ay njabootam ak taalibe ñi fi dëkk ñépp nuyoo boo xam ni nuyoo bu sell la di am mbégte dajeek yéen ci jataay bu mel nii jataay boo xam ni jataayu xam-xam la jataayu fàttalante la maanaam jataayu mudaakara la ndax toujours damay wax ni péncum sëriñ tuubaa ku fa toog ne da wax ci xam-xam na nga jàpp ni da ngay fàttalante ña ca pénc ma rek ndax moom ci boppam dafa raw ñépp ci xam-xam ba mu rawee ñépp it ba tey ña ca gannaawam ci njabootam ak ñamu yar ak ñamu jàngal ñoom it dañoo wéy di raw ñépp ba kon bu woon ni dañu yaakaar ni bu ñu toogee ci pénc moo xam ni daa bokk ci ay péncam di wax ci xam-xam bu ñu yaakaaroon ni ngërëmam du ci ne bu boobaa du ñu am fitu loolu ndaxte ballixu anni walaw aaya ja yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon tax na ku nekk sañ ngaa am fit ci péncum sëñ Tuubaa nga jàng fa benn aaya wala benn xadiis waaye bu dul woon loolu xam nañu ni fii penc mi ak yi mel nii tey askanoo ci Serigne Touba ku fay wax xam-xam wala nga toog fa di fa jaay xam-xam danga mel ni ku dem xa ku dem xaybara cay jamono di jonganteeg ñoom ci bari tàndarma te Xasaan na ni wa inna alladi yuhdi alqasaida naxwana ka mustabdiin tamran ila ahli xaybar ndax xasaanu bnu saabit di waykat ci waykat yi yonent bi salallahu wa sallam yàlla mayoon ko mu xereñoon lool ci way dolli ceeg ñaan yu ko yonent bi salallahu wa sallam ñaanaloon ci way yooya ca ba muy jonganteeg zabarqaan ibnu badr ba yàlla ba yonent bi naan ko allahuma ayidhu bi ruuxil qudus yàlla dooleele ko ruuxul qudus muy jibril ngir mu koy ilhaam di ko sa la mu war a wax demoon na it nag ba gis boppam nag xam ni dëgg dëgg ñaan googu nangu na ci moom ba ba ku ñu ko ku ñu mas a teg ci kanamam ci joŋante ci way rek joŋ na la bokk na ci li mu daan damoo sax lisaani saarimun laa ayba fiihi wa baxri laa tukaddiruhu dilaamu loolu daan na ko wax ci jongante surtout bi muy hijaa abu sufyaan ma doon xarab yonent bi sallallahu alayhi wa kon tuubaa ak pénc yi nga xam ne dañoo aju ci sëriñ tuubaa xam-xam akuk tarbiyu akuk taalibe mel na fa noo xam ni ku fay wax surtout ci xam-xam war ngaa xam ni ci musaakara nga nekk nekkuloo ci njàngale kon loolu ngërëm bi ñu yaakaar ni danañ ci amuk ngërëmam ndax dundam lépp ci xam-xam la ko defee woon comme ni ko sëñ noo waxee léegi ak sëñ Abo kon yaakaar nañu ni baat bu ñu fi wax tam waaju ci xam-xam dana ci danañ ci am ngërëm looloo tax ñu ñeme looloo tax ñu sawar e, mawduu qiraatun fi tawxid Cheikh Ahmad Bamba njàngat ci li nga xam ni mooy tawxiidu Cheikh Ahmad Bamba na mu wéetale woon boromam njàngat la moo xam ni njàngat mu yaatu la jenn jataay kenn mënu ko cee def mu jox ko àqam waaye nag maa laa yudraku kulluhu laa yudraku julluhu mbir moo xam ni wóor na la ni munoo munoo koo motale bu mu tee nga jël ci la nga ca mën a def rek def ko ca te sëriñ Tuubaa wàllu pas-pasam ci yàlla pas-pasam ci yonent bi pas-pasam ci alquran pas-pasam ci bis ak ci malaaka yi ak ci dogali sunu boroom lu bees amu ci ndax mooy ki nga xam ni sosut dara ci diine indiwu fi lenn lu bees alquran la dund sunna yonent bi salaa alayhi wa la dund kese ci la yem waaye li bees ci moom mooy dundin gi na mu doon dunde yooyu lu ñu ñu sas bu dee benn la mu def ci junni loo xam ni sax mu baax na ci ñun mu bàyyi lépp fan loolu mooy extraordinaire ci moom loolu mooy li bees ci moom lépp loo xam ni ndigal la lu jóge sunu borom dunde na ko anami ndundin koo xam ni kenn melu ci ni moom lépp loo xam ni tere sunu boroom la yaa xam day dugg ci baabul xaraam walla baabul makruux wala baabu mu baax sax nag xam ni du sax tere waaye bu fekkee ni bakken am na ci cër rek sëñ bi lépp da koo bàyyi kon yooyu mooy li bees ci moom loolu yooyu ñooy yi extraordinaire ci moom te moom dundam comme ni ñu ko junje léegi lépp wéetal sunu borom la ak wéetal yonent bi sallallahu alayhi wa ndax yonent bi dañ koy wéetal wéetal yàlla ci yi nga xam ni yàllaa ko jagoo loolu ci pas-pas la mooy sax fondement wu pas-pas waaye it tawxiidu rasuli sallallahu alayhi wa sallam fil mutaabaa wéetal yonent bi ci dox doonu dox kenn ku kon sëñ dafa dund ñaari tawxiid yooyu yépp ci dund boo xam ni dana jafe wala dana jomb sax nga wutal ko ci kem kon bu ñu bëggee dugg ci thème bi dinañu wax rekk ni tawxiid mooy wéetal yàlla dafa bokk ci yi nga xam ni ponki gëm yàlla bokk ci ponki lislaam jébbal sa bopp yàlla bu dee gëm yàlla jibril ba mu ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama soppikub nit dafa am yu mu laajoon yonent bi bokk na ci axbir niimal iman wax ma luy ngëm yonent bi sallallahu alayhi ne ko gëm yàlla malaaka yeeg yonent yeeg téere yeeg bis pénc dogal yi mu laaj ko ne ko xibaar ma luy lislaam ba mu koy xibaar lislaam la mu jëkkewaat mooy la loola lépp la tënk imaan lépp loola la ko njëkk a wax ci lislaam te mooy seede ne amul buur bu ñu war a jaamu bu dul yàlla man muhammad ndawal yàlla la kon foofu nga gis eh, ni tawxid ga ñëwaat na nekk ponk bu jëkk it ci ponk lislaam tawxid nag yàlla yonent bu mu mës a yónni tawxid la la booleen wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuuxi ilayhi annahu laa ilaha illa ana faabudun yonent bu ma mës a yónni la ma wax yu ci moom mooy feddalil ko ni man rek lañu war a jàmm amul buur bu ñu war a jaamu ku dul man yàlla yonent yépp loolu moo nekkoon seen asaasu seen fondement mission ndax am nag yonent mu ne say problème yi nga xam ni sa xeet moom lañ doon gën a dund ci ay dérapage ci jàdd yoon yonent yooyu ñëw nañu mu aalaja problème yooyu bu dee yonent yàlla Shuayb wàllu njënd ak njaay bu dee yonent yàlla Muusa wàllu njibar bu dee yonent yàlla Isa wàllu médecine lu ci ne rek yonent yooyu ba ñu ñëwee dañu régler tawxiid ba pare dal di cay teg li nga xam ni mooy problème majeur bi nekkoon ci réew yañ daan dund ba ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee suñ boroom jox ko tawxiid ci anam ga mu gën a mate jox ko xeetu ngëm ci anam ga mu gën a mate comme mission moom dafay gunge àdduna ba keroog àdduna di tukki yonent yépp moo ci gën a yaatu mission moo tax xaatabanteem yaa ayyuhan naasu rek la daan wax wuuteeg yonent yee ko jiitu yaa xaw mi lañ daan wax ak yaa bani israil xanaa yonent yàlla daawuda mi ma sa wax yaa ayyuhan ta la taxoon mu wax ko du woon jottali ndigal waaye wane minnatullahi alayhi ala saa'iri naas yaa ayyuhan naasu ullimna mantiqa ay ci des ñëpp yaa ayyuhan naas yaa yaa xaw mi lañ daan wax yaa bani israil yonent bi nag yaa ayyuhan naasu inni rasulullahi ilaykum jamian la la daa xaatabanteeg nit ñi moo tax yàlla jox ko tawxid ba gën a mat ci xeeti ci tawxid yi jox ko it iimaan goo xam ni moo gën a mat ci imaan ba mu ñëwee moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallama def na lu toll ci fukki at ba dara topp ca jàngalewul julli jàngalewul woor jàngalewul yeneen ci nga xam ni furoo lañu ci diine waaye tawxid rek la doon jàngale ngir tawxid mën a sax ci xol yi ndax wéetal yàlla bu xas bu bu saxee ci xol yi ndigal ya doog a ñëw ndigal ya xol bi da koy nangu te day yomb ci moom ndax tawxid mooy tax nga ragal yàlla bu ndigal ñëwee ragal googaay tax ndigal la woyof ci yow wa innaha la kabiratun illa ala alxaashiin la wax te ay minute a koy def waaye ragal yàlla bu nekkut ci nit ki julli mooy doon deuxième ñaareelu soxla du ko def priorité saa yu jotee waaye koo xam ne ragal yàlla jiitu na ci yow bu julli ñëwee rek da nga xam ni lii mooy mooy priorité fi mu toll nii moo gën a yell ci lu ma mën a def ci waxtu wi kon yonent bi jàngale tawxiid ci fukki at ak lu teg yoo xam ni dara raxu ko ba mu jógee ci njàngalem tawxid ba julli ñëw koor natt azaka haj Makka yeneen yi nga xam ne ay tashriaat yépp ñëw waaye teewul mi ngi jàngale yooyu continuer di jàngale tawxid ba tey ba ni mu fi jógee kon tawxid daanaka mooy e, rasul amri diine yonente bi sallallahu alayhi di lislaam tawxid mooy bopp ba comme ni ko sëñ bi junje léegi jëf ju mu mën doon bu fekkee ni imaan jiituwu ci yàlla xoolu ko yaa xam infaaq la yaa xam ay ndimbal la yaa xam xeeti mbaax yépp yi doomu aadama di def bu fekkee ni tawxiid jiituwu ko imaan jiituwu ko bu boobaa loola nga def amalu la benn njariñ ba Adi ibnu Xaatim laajee yonent bi ne sama baay day ñépp xam nañ ko ci tabeem ba araab yi ak tabeem ñu def ko misaal ñuy léeboo tabeem ndax tabeem googu dana ko jariñ bis pénc yonent bi da ko tontu ne ko du ko jariñ bis pénc ndax musul wax laa ilaha illa ci dundam kon tabeem googu du ko jariñ kon imaan mooy fondement bi yonent bi sallallahu alayhi wa ba mu fi jógee saxaaba yi wéy ci fa yonent bi tegoon tànkam di jàngale lislaam da ca jiital tawxid di ci jiital al iman jiital ga ñu ko doon jiital tax na nit ñi daa njëkk a ñëw di dugg ci ci lislaam ku ci mës a ñëwit tawxid lay jàngal lii firndeel loolu yonent bi ci mujj dundam ba mu yónni Muaaz ci Yaman bokk na la mu ko jëkk a dénk woo leen ci ñu gëm ba pare innaka tati qawman min ahli alkitaab faltakun awala ma tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah fa in hum ataacuuka lidalika fa axbiruhum an allaha farada alayhim xamsa salawaatin ila axiri alxadis yaa ngi dem fekk ñoo xam ne ahlul kitaab lañ na nga leen woo jëkk ci ñu seede ni yàlla rek lañu war a jaam ci ñu seede ni man yàllaa ma yónni bu ñu nangoo ba pare nag nga xibaar leen nii nag gannaaw ba ngeen nangoo julli juróom war na leen asaka dal di ñëw ak ci des yépp dal di ñëw kon tawxiid ngëm yàlla mooy njëlbeenu fondement wu ci lislaam e, yonent bi nag ba mu fi jógee saxaaba yi ci seen mujjug jamono am yu commencé di xew ci lislaam ndax firaq yi pas-pas yi nga xam ne dafay wuuteeg pas-pas ba yonent bi jàngale mi ngi commencé di juddu ci jamono yi yu mujj yi ci fekk am na ay saxaaba yi mujjee faatu fekke nañ ko ku demee ne Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab moom 73 juróom-ñaar fukki at ak ñett la faatu waaye xew-xew yooyu ñiy weddi xadar ak jabriye ak yooyu ba ñuy xew booba mi ngi dund moom yàqu-yàqu yi commencé dugg ci lislaam e xawaarij yi am ci lislaam ci jamonoy ali tashayu am ci lislaam ci jamonoy ali yooye yépp ku ne ci ñooña indaale sa pas-pas yoo xam ni danga ko jéggaani ca la nga njëkkoon a nekk avant ngay dugg ci lislaam ndax nit ki bu miinee dara pour mu mu set ci wécc tajarrud ci tajarrudan nihaiyan yenn saay mu xaw a jafe ñoom nag pas-pas ya ñu gëmoon ca ba ñuy nekk ay majuus ñii pas-pas ya ñu gëmoon ca ba ñuy ba ñu jàngee xam-xamu grec yi yunaan yi pas-pas yooyu dañoo ñëw duggaale ak moom ci lislaam loola commencé indi ay munatafaat ay dérapage yoo xam ni yu doy waar la ci biir lislaam donte taxu ko woon a fés nag lool waaye bi saxaaba yi jeexee ba taabi'una yi ñëw pas-pas yooyu commencé di tasaaroo ndax dem nañu ba am sañ-sañu taxawal ay daara yoo xam ni seen pas-pas yooyu lañ fay jàngale loola tax na nag xeet wi commencé di séddaliku ci wàllu pas-pas ba tax nag ñi nga xam ni ñoo nekkoon di des ci pas-pas bi yonent bi daan jàngale ñooñu ñu tudde leen ahlu sunna jamaa kon ahlu sunna jamaa tur woowu fesul lu dul bi nga xam ni am nañu am ci lislaam di askanoo ci lislaam di fas ay pas-pas yoo xam ni wuute naag pas-pas woo fi yonent bi indi woon moo tax pour ràññaat le ñee ak ñii nga xam ni ñoo fas la yonent bi indi woon moo tax ñu ne ñii ahlu sunna wal jamaa ña nga xam ni dañoo weddi xadar ñu tudd leen alqadariya ña nga xam ni dañoo weddi qudratullaahi ñu tudde leen aljabri eh, ña nga xam ne dañoo weddi eh, xudratullaahi weddi jëf ne amul njariñ pas-pas rek doy na ñu tudde ñooñu almurjia ñi nga xam ni dañoo weddi ne jëf jaam bi ci boppam amul amul choix al abdu musayyar dañu dañoo mel ni ku dañu yore remote control eh, télécommande di ko commandé jaam bi daal amul ixtiyaar ca la muy def sañuta def sañuta bañ dañ koy guidé oto guide la ña loolu ñoom lañu daan wax aljabriya ñi nga xam ni dañu weddi woon melokaan yi yàlla melal boppam ci alquran ñu tudde leen almutazila ña nga xam ni dañu jàpp ni ku def bàkkaar bu mag yéefar nga te bu bis pencaa takunu xaalidan mu xaladan fi naar mu doon pas-pasu xawaari ji kon yooye yépp ñu ngi commencé di am ci mujjub dundu saxaaba yi jàpp ci jamonoy taabiin yi ak atbaawu taabiin looloo tax ahlu sunna wal jamaa ràññee seen bopp walis ñooñu pour ñu xàmmee leen ni ñoom ñii kat seen pas-pas mooy pas-pas bi nga xam ni moo tegu ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te sunna bu ñu la ko waxee mooy yoon wa yonent bi jaaroon min macharin sannat lahum abaauhum wa li kulli qawmin sunnatun wa imaamuha kon na ko borom mu àllaqa ba waxe dañu bokk ci nit ñoo xam ni seeni way jur seeni baay xottil nañ leen aw yoon te nag giir wu ne nag am nañu yoon wuñ leen xottil ca la ñuy jaar kon sunna la muy tekki mooy yoon kon yoon wa nga xam ni moom la yonent bi jaaroon ña ca tegu ñooñu lañ naan ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna wal jamaa nag dëgg la jamono dox na ba am ñu bari ñu koy xëccoo wa kullun yaddaci waslan bi layla wa layla laa tuqtiru lahum bidaan eh, waaye teewul ngir boroom xam-xam yi seenug yaatal rek am nay wuute yu sew yoo xam ni dox na ci diggante yenn ahlu sunna yi ñoom seen biir waaye seenug yaatal ak seenug maandute tax daawuñu génneente ci biir ahlu sunna wal jamaa loola tax na boo demee ci borom xam-xam yu njëkk ya ku demee ne Abdul Qahir al Baghdadi nga dem ci Abul Hasan al Ash'ari ci maqalaatul islaamiyin wa ixtilaaful musalliin nga dem ci Abdul Karim Shahrastani ci al milal wan nihal ku mel ni Ibnu Hazm ci al fisal fil milal wan nihal da danga gis téere yooyu yépp bu ñu yeggee ci ahlu sunna wal jamaa dañ leen di séddale lu baree baree bari ñetti xaaj benn xaaj bi te mooy jumhurul muslimin ca jamono yépp ñooña mooy al ashaira di topp abul xasan al ashari xam ni mu ngi faatu woon atub ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ci gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi eh, am na ñeneen ñu doon tuddee al maturidiya ñoom it ci biir ahlu sunna la ñu bokk boo demee ci xanafiya yi ñu baree bari ci ngiram ci pas-pas la ñu yaskanoo eh, abu mansour al maturidi nga xam ni mooy njiitu ngir woowu ak ñañu naan ahlul xadiis ahlul xadiis ñii nee naa ñii naan leen al athariya ñeneen ñi naan leen al xanaabila kon ñett yii lañu daan dugal ci keppaaru ahlu sunna wal jamaa waaye teewul it ñu xam ni ñoom ci seen biir daan nañu raddante ci ay masail waaye taxut woon ñu dàqante ci biir mbaar mi di mbaaru ahlu sunna wal waaye nag ñu xam ni jumhurul ulama Eh, li ëpp ci jullit ñi depuis booba ba tey ay achaira lañu eh, muy madhab bi nga xam ni ka ko wesaare tasaare ko lool mooy abul xasan al ashari mi ñu doon tudd léegi eh, cheikh ahmad bamba doonoon koo xam ni ci al madhabul ashari ca la wékkoon pas-pasam bind ci ay téere yoo xam ni téere yu bari la wax ko it ci ay téeréem yoo xam ni sax duñu ay téere yi aqiida bokk na ci téere yi gën a rëy yaa nga xam ne da koo bind ci pas-pas booba di pas-pasu ahlu sunna wal jamaa mawaahibul quddus ndax mawaahibul quddus eh, aslu téere bi cosaanu téere bi sanusi moo ko bindoon samaytuhu mawaahibal quddusi fi nazmi nafri sanu sanusi moo ko bindoon mu doon borom xam-xam bu mag doon dund ci alxarnu taasix al hijri doonoon koo xam ni wax nañ ni sax ci jamonoom xarnu boobu moo moo moo ca nekkoon al mujaddid bindoon téere bu mu tuddee woon umul barahin yenn saa yi ñu koy tudde al aqida sughra bindaat beneen téere tudde ko al aqidatul wusta bindaat beneen téere tudde ko al aqidatul kubra yii yépp ci pas-pasu ahlu sunna wal jamaa la ko tënk sëñ bi nag eh, jëloon umul baraahin dal di koy nazmu mu doon mawaahibul quddus waaye dolli ci yu baree baree bari yoo xam ni nekkul sax ci mawaahib ci ci ci ci eh, umul baraahin bind ci it faydul xaliyil mughni xam ni pas-pas la fay wane muy pas-pasu ahli sunna jamaa di pas-pasu abul xasan al ashari dellu ci njëlbeenu tazawudu sixaar tazawudu shubbaan yooyu yépp mu jàngale fa la nga xam ni mooy pas-pasu ahlu sunna wal gi nga xam ni mi ngi ko wékk ci madhab abil xasan al ashari kon bu fekkee ni dañ dañuy def ay njàngat ci pas sëñ bi dama yaakaar ni la ñu gën a yittewoo doonut la def ci mawaahibul quddus la mu ca bind saxal ko ca doonut it la mu saxal ci tasawudu sixaar ak tasawudu subaan ak faydul xaniyil mughni ndax yooyu yépp tawxiit la pas-pas la bu ahlu sunna wal bu abul xasan al ashari waaye tawxiit la bu goo xam ni pas-pas la boo xam ni pas-pas navari tawxiidu navari aw aqida navaria la muhaadara bi nag li ma ci gën a soxal mooy aljaanib at tatbiqi ci pas-pasu sëñ bi ndax loolu euh, dama yaakaar ni toog di wax li sëñ bi wax ci mawaahibul quddus ak ci téeréem yooyee ñu tudd day xaw a ñu doog taxsilul xaasil defe naa daara yépp jàng nañ ko xam nañ ya nga xam ni moom la téere yooyu làmboo di pas-pasu ahlil sunna wal jamaa nga xam ni laa yasaw ahadan an yajhaloo ñépp a ko war a xam te penc mi ñépp xam nañ ko insha allah e, kon jaanib bi nga xam ni ci la sëñ bi ràññeekoo ci wàllu pas-pas te mooy aljaanib ak tatbiqi ci waxtaan wi insha allah ci lañu bëgg a joyal e, suñu waxtaan ndax lële nazari la waaye moom naka la ko doon dunde moom sëñ bi Eh, ndax it eh, dama koy wax toujours bu ma ko doon takraar téeméeri yoon par bis sax du ma du ma am malal ci wax ji mooy ni dafa am ay aw awju yoo xam ni sëñ bi da ko niroog eh, yonent bi ci wootinam ci awju yu bare bare bare loola tax na may wax ni sëñ bi indiwu fi lu bees ndax yonent bi rekk la koppi ndax gëm nañu ni na mu doon wéetale suñu boroom ci pas-pas ca ya nga xam ni suñu boroom a ko yelloo mu jagleel ko ko naka noonu noonu la doon wéetale yonente bi sallallahu alayhi wa ci topp amut woon beneen royuwaay bu dul bi sallallahu alayhi e, kon bu ñu xoolee yonent bi fa mu tegoon tànkam sëñ bi na mu ca tege tànkam danañu gis ni yonent bi wooteem wax nañu sànq ni yonent yi bu ñu daan woote seen i ñoñ lañ daan woo ak seen i giir yaa bani israil ak yaa mi moom mu ñëw ne yaa ayyuhannaasu inni rasulullah ilaykum jamia yonent yi seen i diine dëgg la sax nag yàlla lislaam la ko tudde woon waaye ba ñu fi jógee tur ya daa soppeeku seeni nit soppi ko tudde ko yeneen tur yoo xam ni bokkul ak ga yàlla tudde woon ndax yàlla nee na benn diine la am muy islaam xawaari yuun ya islaam lañu ñu woon ba ñu nango jibarkatu Muusa ya yu yu Firawna ya lislaam la ñu déclaré woon na ci la ñu bokk yonent yàlla Ibrahima ak Yaqub seeni doom ba ñuy tàggoog ñoom l'islam lañ leen feddalil ñoom moom la ñu reconnaître ne ci la ñuy ci la ñuy dund kon yàlla l'islam rek la ma sa am ci diine inna dina inda laay l'islam tekkiwul ne moom la reconnaître léegi la muy tekki mooy ni moom la ma sa ci diine amul jeneen diine ju mas a tudd nenn nu dul l'islam ñii nga xam ne nag l'islam galeen yàlla joxoon jox ko Muusa ba fi Muusa jóge soppi nañ ko tudde ko seenub maam di taaw bi yonent yàlla Yaaqub kon nga gis diina jë na mu soppe ko ba mu mujje doon alam ci ñoom moo tax yàlla bu bu bu leen bëggee ràññaat le tur wa ñu tudde seen bopp ba ràññeekoo ca moom la leen di tudde rek ci alquran nasaaraa yi tamit kadalik dëkk ba Isaa yaroo def fa fukki at ak lu teg ca ndawam ñu tudde ko Nasira ñu naan ko nasaret dëkk boobu it la ñu mujj tudde seen diine ja mooy an nasaara ba ñu mujj leen caa askane comme dem nañu ba ñu ràññee leen ca nag ah yàlla comme moom lañ leen xame yàlla it bu leen di tudd rek noonu lañ leen di noonu la leen di tudde nañu tudde seen bopp ndax ci lañ leen di ràññee waaye yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla jox ko diine joo xam ni askanam feeñu ci ay maamam feeñu feeñuñu ci dëkk ba mu dëkk feeñu ci waaye képp kuy doomu aadama xaj nga ci biir mooy islaam jébbal sa bopp yàlla bu ñu xoolee sëñ bi teg gi mu tegoon tànkam ca fa yonent bi tegoon tànkam bay niroo léegi yonent bi ci lépp gis nañu tarixa yi ñu fi xam ak yi ñu xamut yépp rek ci ay nit lañuy askano alqaadiriya wala ñu askanoo ci askanu borom tarixa baat dasuuqiyaag alxaskafiyaag naqshabandiyaag rifaaciyaag badawiya wala ñu askanoo ca dëkk ba waaj a dëkk achazaliya chaza la ab village la waaye sëñ bi moom wàcc fi mbàkke gi wàcc fi bawal wacc fi lépp lu bokk ci moom ne muridullah pour ñépp xaj nga xool lii na mu niroog lële wooteem moom na mu niroog woote yonent bi sallallahu alayhi wa ngir ni rek ñépp dañu ci mën a dugg xacc yahud yi seeni diine seen diine boo bokkul ci al asbaat ya di fukk ak ñaar laa yuraxibuna bi ka ci diine bi mën nga caa nekk nag ñu soxla la def lab xaadim di la di la di la di la exploité comme nañu defoon yahudu falasha yooyu jóge woon Éthiopie ndax booba soxla nañ ku leen di baleel seeni mbedd ak yooyu ndax yi ñoom ñu ne ñoo bokk même xeet jombale nañ ko seen bopp ñu fexe ba créer créer ñooñu askan ne ay yahud lañu fexe ba ba ba jal bu leen ñoom ñëpp ñu dem Israël mooy yahud yu ñuul yooyu nga ngay gi jóge Éthiopie ñoom kon seen diine dañ ko codé yonent yàlla Isaa sax nag ba mu doon wax nasraan yi rek la daan waxal boo demee ci seen Nouveau Testament bi mi ngi naan lam ubaas illa ila xiraafi bani israila la dina yàlla ci xari bani israel yu sànku yi rek la ko yónni moom yonent yàlla isa yonent bi nag diineem mu ñëw yàlla jox ko diine joo xam ni daa woo ñépp dugg ci udxulu fi silmi kaafa ba pare nag teg ci ni taalaw ila kalimatin sawain baynana wa baynakum ñëw leen wuyu ma ci laa ilaha illallah bu ngeen ma ci wuyoo rek ma yem ceeg yéen bis ba ngeen ma ci wuyoo sëñ Touba lii nga xam ni moom la woote ñépp ci yam amu ci woon xàjj ak seen xàmmewu ci woon askan wa nga bokk xàmmewu ci woon gox ba nga dëkk xàmmewu ci woon ñooña ñuy am tur yu ñu leen di tudde jàpp ni dañoo xeebu moom ñépp la yemale woon nga gis digganteem ak sëñ Mahmoud Mbegere eh, na na na mu na mu defoon ak moom ca ba mu ko indilee kaamil ba jël doomam may ko kaamil ba ci boppam mu jox ko Cheikh Mouhamad Lamine Baara ne ko ëw ko kooku ëw ko indi kaamil bi mu ne ko ndaxam sax da yow lii tax ñu naan la wuude moom la Mouhamad Lamine Baara mi def tey moom it li tax ñu naan ko sëriñ moom nga def tey muy bind kaamil kon kooku amul woon xaaj ak seen kon fa yonent bi sallallahu alayhi tegoon tànkam foofa la teg tànkam man mii toog sax di wax nag ñàkk xaaj ak seenu sëñ Tuubaa dama cee dugg ndax ay ceddo lañu boo ma wëññilee ñaar ba ñetti maam ñu dugg ci ceddo ci ay tuubeen waaye boo gisee ma sañ a toog ci jataay ci ci péncum sëñ Tuubaa di wax ah yëpp ci yaatalu sëñ Tuubaa kon udxulu fi silmi kaafatan jooja ak taalaw ila kalimatin sawain baynana wa baynakum daa feeñ ci pénc sëñ Tuubaa kon sëñ Tuubaa dafa niroog yonent bi ci asl bi nga xam ni wooteeg yonent bi ci la teg woon ñaareel bi lépp lu sëñ yonent bi daan ndamoo sëñ Tuubaa lay ndamoo dinaa bari na waaye dinaa ci joxe ñaari misaal rek benn bi mooy yonent yi jaar yépp ku ci ne yàlla jox na la ay kaawtéef ak i mujizaat yoo xam ni ci nga convaincre say nit yonent bi ne la ko yàlla jox la tax mu convaincre nit ñi mooy wax yu gii di alquran ay mbind la sëñ Tuubaa la mu def ndaxam ci alminaxul miskiya lañ ca lañ lañ ca nettali minanul baaqil qadim lañ ca nettali annafaxaatul miskiya lañ ca nettali loola yépp dara yéemu ko ci moom la ko ca yéem rek mooy mbindam moom karaamati xattu yadi bil mustapha al muayyadi nga xool la nga xam ni moom la yonent bi di ndamoo di ko puukare woon ne mooy mujiza gi gën a màgg ci gi ko yàlla jox mooy mbind mii di alquran sëñ Tuubaa gis nga la gën a rëy ca la mu puukare la mu doon ndamoo mooy ni mbindam mii xafidtuma na ani dafatiri yooyu yëpp ida katabtu tazza maliki yooyu yëpp di wane na mu jéem a fexe tënk boppam ba cuub boppam cuub ga nga xam ni noonu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekke woon moo tax fu yonent bi tegoon tànkam lu mu doon ndamoo lay ndamoo lu mu doon puukare woo la doon puukare ndax roy na ko ci ba mel ni moom bokk na ci ba tey ci ñaareelu misaal bi mooy ni moom sunu boroom fu yonent bi ma sa tolloo foo xam ni nit lott na ci man fa toll bu ko sunu boroom daan nettali turu muhammad du fa feeñ turu yar turu rasulullahi du fa feeñ turu nabiyullahi du fa feeñ donte fonk na yonent bi lool ba daawu ko woowe turam waaye bu yonent bi masaa yegg ci taxawaay woo xam ni nit musu yegg bu ko suñ boroom di nettali tur wa dana réer melokaan ya réer benn melo rek la koy melal mooy jaam bi subhaana alladi asra bi abdihi la ca teg ndax isra kenn musu koo def pour fàttali nit ñi rek ne ab jaam la Eh, wa innahu lamma qaama abdullahi yaduuhu ndax jinne yi mosuñoo nangul kenn ci seen coobare suleymaan da leen jaayoon da leen nootoon ci ndigal suñu borom waaye ci seen coobare dañoo nangul yonente sallallahu alayhi wasallam eh, wa innahu lamma qaama abdullahi yaduuhu kaadu yakununa alayhi libada alquran gii nga xam ni moom la yonente bi ne mooy mujisatuhul xaalida ba ko suñu borom di wax ci wane ni donte nag jinne yeeg nit ñépp lott nañu ci amal lu mel ni alquran waaye wa in kuntum fii raybin mimma naa ala abdina la ca teg yépp rek ngir fàttali nit ñi ni ab jaam la waaye nag martaba la place la taxawaay la yoo xam ni yonent bi musuta kawe ba kawe place yu taxawaay yooyu te nit it musuta yegg ci place yooyu nga xool sëñ bi ca ba muy jógee ndar di dem ñu ne dañ koy yóbbu exil eh, muy bind asiiru te lépp lu ko suñu borom defal ci tukkeem woowu la ko ko defal tukki woowu ba mu cay dem xam ni la la ko suñu borom di defal yépp dina ko ko ci defale yegg na ci martaba boo xam ni wóor na ko ni kenn du ko weesooti ca la doon way asiiru waaye teewul mu fàttali ñépp ni ab jaamub yàlla la woon loolu yépp ci tawhidam shuhuri wa ayaami gadan li shawahidu bi anniya abdullahi wa huwa shahid weer yi ma def ci àdduna bi bis ma fi def yépp danañ ma seedeel ëllëg ni ab jaamub yàlla rek la loolu gaayatun fi taxqiqi tawxid wa gaayatun fi taxqiqi ubudiyatihi lillahi subhanahu wa taala kenn mënuta weesu foofu ndax euh, koo xam ni yaa ngi wuti mu wóor la ni lé fa la nga jëm la ngay am lépp da ko la nga bëgg lépp danga ko fa fekk lépp da ko fa am foofu euh, nitu kese daan daan na ci ndamu shuhuri wa ayyaami xadan lii shawaahidu tegu ci ne maay diw maa fi raw am na ñoo xam ne bu masaa màndi ne seen ndëggu teg nañ ko ci kaw loosu wal yu yépp ci buñ masaa toll fu xaw a jege foofu waaye moom damay wax ni istiqaama gi tax na mandite musu koo dérapeloo ak mandite musu koo dérapeloo ndax Ah, ku ñu si joxoon kaasub sàngara danga nga tërëf léegi léegi moom moytuwul dañ jàpp sa ko yóbbu la sa kër waaye am na ñoo xam ne mën nañ naan fukki litre ci genn guddi yëngalu leen sax loola it dafay signaler place bi nga xam ni moom la sëñ bi amoon place bi kawe na xaal gi bari na waaye xaal lu mu masa masa masa bari ci moom lu mu masa masa yéeg ci moom du tax mu mu déraper anil qurani wa sunna loolu dafa bokk ci min xasaayisu cheikh laa budda it ñu xam ko loola da ko fésal ci tawxiidam ci wéetal ga nga xam ni moom la doon wéetal sunu boroom e yooyu ñu tuddoon insha allah duma ci laal dara waaye baasu sunu waxtaan dañu ko teg rek ci wax ju mu wax xam ni tax taxqiiq la wala tatbiq amali li tawxiidihi fillaahi wa fi rasuli wa fi alquran te mi ngi ko wax ci muqaddimatul xidma maanaam ñu bari fooguñu ko fa muqaddimatul xidma xam ni téere salawaat la sëñ bi mi ngi fay wax naan pour wane ni dëgg la xamees na tawxidul amal al al al nazari gi nga xam ni saxal na ko ci téereem yu ñu fi tuddoon lépp waaye ci muqaddimatul xidma léegi ca la tàmbalee def ko muqaddima ngir saxal tawxiduhu al amali lillahi subhanahu wa taala wa tawxiduhu al amali fi mutaabaati rasuli sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni allahuma inni muqirrun laka fi hada al yawmi wa baadahu bil uluhiyati wa bil waxdaaniyati wa bin nafsiyati wa bi baqiyati salbiyati wa bil maani wa bir rububiyati wa bil asmaa al xusna wa bi annaka maaliku kulli shay wa xaaliqu kulli shay wal aalimu bi kulli shay wal xaakimu ala kulli shay wal qaadiru ala kulli shay allahuma inni muqirrun li abdika wa rasulika wa xabibika sayidi wa mawlaaya wa wasilati ilayk min hadihi saacati ila wafaati wa qurrati ayni muhammadin sallallahu taala alayhi wa sallam bi risaalati wa bi sidqi wal amaanati wa tabliixi wa bi annahu afdalul xalqi jamian wa bi anni jacaltuhu lyawma wa gadan wasila wa gadan wasilati wa qudwati mu waxati ci alquran ne wa bi anni raditu billahi rabban wa bilislaami diinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallama nabiyan wa rasulan wa bilqurani dalilan wa bilkaabati qiblatan wa muqirun laka bi annaka xayru raziqin wa akramul akramin wa arhamu rahimin wa bi annaka alghafuru rahim alshakuru aljawaadu alkarim albarru alwaasiu alnaafiu alghaniyu almughni nga xool li mu dugal fii ci xeeti tawxid ci xeeti wéetal sunu boroom ci jaamu ak ci jox ko sa bopp ci xeeti wéetal yonente bi sallallahu alayhi wa sallama ci topp ko ci xeetu jël alquran def ko muy dalilam xam ni li mu bëgg xam ci boroom ak yonent bi yépp alquran ak koy tegtal dinañ ko def ci muqaddimatul xidma amaana suñu waxtaan lépp ci maani yii mu wax fii ci lay wër ndaxte coow li bari na ci wàllu séddale tawxid ñii séddale ko ñetti xaaj tawxidul rububiya uluhiya asma wa sifaat ndaxam sax ci la bokk ñii séddale ko ñaari xaaj tawxidul ilmi wal isbaat wa tawxidul qasdi wa talab wa tawxidul qasdi wa ñu ne ñaari xaaj yooy la waaye moom nga gis fi mu génne ci tawxiid ngir yëg ni mu doon yëge suñu boroom ni mu xame woon suñu boroom ak ni mu ko doon yëgee tax mu xam ni yàlla dañ ko war a wéetal ci anam yu bare bare bare bokk na ci anam yañ ko war a wéetalee te moom wéetal na ko waaye mi ngi reconnaître xam na ko nawariyan waaye mi ngi reconnaître tatbiqiyan ci muqaddimatul xitma ne moom mi ngi koy saxal te mi ngi koy dund moo tax loola la tàmbalee ne allahuma inni muqirrun laka fi hada al yawmi wa baadahu bil uluhiya gëm naa ni yow rek yàlla ndax uluhiya ci baatu ilaah la jóge ilaah nag mooy nga xam ne moom lañu war a jaamu ci dëgg xurtu eh, bi indi na ko ci tafsiram mu ngi bi muy génn istiqaaku ilaah mi ngi cay indi benn bayit bu benn waykat mosoon wax ne lillaahi darrul xaaniyaatil muddahi sabbaxna wastarjana min taalluhi taalluf bi maanaa at taabud kon yàlla maa ngi lay saxalal ne yow rek lañuy ñuy jaamu te yow rek laay jaamu kon loolu tawxiid la goo xam ni tawxiid amali la goo xam ni sëñ bi da ko doon dund nekk gi mu nekk di jaamu yàlla moom kese loolu moom biir na ñépp alqaasi waddaani ndax ay mbindam wane na ko xibaar ya ñuy toxale ci moom ci ñi dundandoog moom wane nañ ko kon wéetal yàlla ba musuta aju ci dara ci ci kenn ci lenn lu dul sunu borom sëñ bi da ko fésal ci ay anam yu bare bare bare fésale na ko mu bokk ci li or li li li extraordinaire ci moom li yéeme ci moom mooy fésale na ko ba lépp loo xam ni suñ boroom dañ ko koy defal mu santuñu ko te sax nag yenn saa yi mu jéggal ñu ci ñu mën ko séq nit sëñ tubaa comme sunu boroom bëgg na loolu rek moom jombale na boppam di séq lu mel noonu nit dama ciy joxe misaal rek tàllal loxo nga tegal ko ci dara nga xam ku nekk sañ nga ko de nit di la jox dara nga tàllal sa loxo mu tegal na ci waaye sëñ bi nee na loxo ya muy ñaane yàlla di ko tàllal suñ borom mu koy may jombale na boppam di tàllal loxo yooyu nit di ko ci tegal dara wax na ko ci ay mbindam yu bari maa ngi ciy jàpp eh, katabtu fi lbahri anni la amuddu yadi ila nasara e eh, nga gis ne jombale na ko boppam di tàllal loxo ñu ko ci tegal dara ca yoonu géej même la nga xam ni ay xaajoom la bu ñu ko masaa indi ku ko indi daan la tegal nga teg waaye du tàllal loxo mukk nga teg ko ca kon kooku it xaaya la ci taxqiqul ubudiyati wa tawxidillahi subhanahu wa taala te ndaxam nag sañoon na tàllal na nga ko ciy tegal comme ni ko ñëpp di defee waaye nag mu baala xaam ci wéetal suñu borom ba noo xam ni akt boo xam ni xaraka boo xam ni da koy def jëme suñu borom jombale na ko boppam di ko def jëme ci mbindéef te sañ na ko wàll yooyu ñooy wàll yi yéeme ci sëñ bi moo tax bokk na ci tawxiidul loola bokk na ci wéetal gëmu wéetal yàlla ci ni ay jëfam yépp sunu boroom la ko jébbal subhaanahu wa taala saxalal na yàlla ni yàlla mooy kenn danañ jël ci waat ci tomb boobu ci kanam waaye nee na mi ngi saxalal yàlla ne yàlla mooy kenn amut moroom amut ñaar du ci melokaanam du ci ay jëfam du ci yamuy jomb yàlla amul kem amul moroom kon saxalal na yàlla kom ni ko yàlla bëggee ci moo ci ci ci jaamam yi ñu saxalal ko al waxdaaniya fi kulli maa huwa sifatu sifatul kamaali lahu lépp luy melokaan woo xam ne ak kamaal la sëñ bi nee na mi ngi koy saxal ne yàlla rek moo ko yayoo lépp loo xam ne it sifa la boo xam ni salbiya la nee na mi ngi koy dàqal yàlla comme ni koy yàlla dàqale bopp kon wéetal yàlla ci lépp incha allah dinañ ci delluwaat si waat ci kanam mi ngi saxalal yàlla melokaan ya nga xam ni it melokaanu nafsiya la yi nga xam ni yàlla ci boppam eh, dafa aju ci moom yàlla ci jëmmam ju tedd ja nga xam ni kenn musu kenn mënu koo misaal ndax yàlla lépp lu mu waxal boppam ne noona la mel niroowu ceeg doomu aadama dara laysa ka mis laysa ka mislihi shay waaye nag wa huwa samiul basir dara niroowul ak moom nee na mi ngi saxalal yàlla ya nga xam ni yàlla moo jagoo ci ay sifaat comme ni ko yàlla saxale boppam ci anam ya nga xam ni it yaliqu bi jalalihi subhanahu wa taala wa na mi ngi saxalal yàlla rububiyaam ar rububiya nag bu ñu ko waxee mooy rabbu gi yàlla doon rabbuy lépp moom gi yàlla moom lépp ndax yàlla mooy ki moom lépp ndax moom rek moo bind hal min xaalixin xayrullah amul lenn lu nekk ci kaw suuf ci àddina bi te kenn indi ko fi yii ñu jàpp nii ñu defar la sax ah, matière premier ba fu ñu ko jële kenn jëlewul lenn ci biti àdduna indi ko ci àdduna lu fi nekk rek yàlla subhanahu wa moo ko moo ko indi hal min xaalixin ndax am na kenn koo xam ne bind na dara ak lu mu tuuti tuuti tuuti ku dul yàlla subhanahu wa taala mu ngi saxalal yàlla kon lépp loo xam ni melokaanuk rububiyaam la ne yàlla mooy rabbuy lépp moo moom lépp ndax moo bind lépp dinañ ci dellusiwaat